ancien garde des Sceaux maître El Hadj Amadou Sall maître Alioune Badara Fall ABF di sant maître Soumaré di sant également suma xarit maître El Hadj Diouf kon di wax rek liggéeyal Sénégal rek moo ñu tax a jóg dégg naa sax ñuy wax naan ba ñuy dem bakkel ñetti mbuusu ñetti butéelu ndox ak juróomi paqueti mbiskit ñoom ñoo xam lu bon loolu parce que ñoom ñoo xamul teraanga ñoo ko xam ñoom ñoo xam loolu parce que xamuñu teraanga xam nga kuy dem ci xalif général di ko nuyoo deux mille wala deux cent cinquante mille kooku xamul teraak kon du ma du ma épanché wu sax ci lool mais li wóor rek mooy damay inviter la classe politique nga la waay soyons plus responsables j'invite la classe politique a épargné l'armée ci suñuy wax nañu coppet armé génne ko ci suñuy kasaw-kasaw l'armée c'est du sérieux armée sérieux na sérieux goo xam ne ba assemblée nationale budget armée kenn du ko waxtaan budget armée kenn du ci joxe sa xalaat dañuy ñëw voter ko daal di avancer sacralité boobu ñu jox suñu armée maa ngi invité tous ceux qui sont dans la classe politique ñu def ko mais di wax président de la république comme seen waa jooju ñuy wax musallimi waxuma musallimi de musallimi ki ñuy wax musallimi nga la way na góorgóorlu ba lu jëm ci wàllu secret d'état ñu defal ko training xamal ko ni njiit day am bàmmeelu biir ñu wax ko njiit day xam baca njiit du lu xam teg ko ci place publique dégg naa sax muy wax naan dafa am général boo xam ne rapport daf ko épinglé c'est archi faux amul amul benn rapport bu épinglé benn général fii ci Sénégal yëgg na sax ba ci wax naan dégg naa coowal mille milliards yi boobu boobu mu ma fekk maa ngi ci maa ngi ci biir affaire bi compte mille milliards xam nga xam nga boo boo nekkee nit ku inculte mooy nit ku amul xam-xam boo waxee waxi dof dof dof yi ak xar yi ànd ak yow du ñu am capacité de discernement dama lay wax ne la dama leen di leeral ne xam nga man dama yëngu ci wàllu finance ah xaalis bi nekk ci banque bi xaalis bi nekk ci coffre banque ba ci banque yi ngeen di gis ci koñ bi xaalis bi nekk ci coffre bi mm-hmm. assurance moo koy assuré et assurance du nangu yenn montant yi amul benn banque ci Sénégal boo xam ne am na coffre coffre bu mën a accueillir trente milliards amul donc xaalis yi nekk ci banque yi ci Sénégal yëpp boo ko dajale woon mënta mat mille milliards c'est pas possible waa léegi dégg sax comme bu ñu waxee dof dafa am seen yeneen xar yoo xam ne dañuy génn di ko leeral naan wuy yëf bi xaalis bi mun naa nekk à l'étranger déglu leen aba man du ma bëgg ñu ñuy lëndëmal compte bancaire dafa sacré même bu nekkee bitim réew boo bëggee am information ci compte bancaire il faut mu am li ñuy wax commission rogatoire mus ngeen fi dégg commission rogatoire bi ñu fi toogee léegi da ngay bind juge bu nekk ci réew ma nga ne xaalis bi fa la nekk juge boobu mooy tàmbali liggéey bi dafi gëstu wax la li nekk ci xaalis boobu est-ce que da ngeen ko dégg fenn waaye waaye waaye waa ji wax waxu mille milliards ñun fu ne ñu nga fay dem di lebi foo gis mille milliards wax ñu ñun ñu ànd ak yow dem jëli ko xanaa wax ji day jeex